tawa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 billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamina wassalaatu wassalaamu ala almabuuth rahmatan lil alamin sayidina muhammadin almakin wa ala ahlihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin ixwata al imaani wal islaami wal ixsaan wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa M Media groupe Nouru Darayni ñu ngay sant yàlla subhaanahu wa taala di jul ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc-rëcc te nungu ñu suñu jaamu yàlla di ziyaare mbokk yépp rek képp koo xam ne kii rek yaa ñun liggéey bu sell bi ñu ngi lay ziyaare di la ndokkeel di la ñaan yàlla subhaanahu wa taala loolu laa defal tawfiq bu baax a baax a baax kon tey xam na suñu liggéey bi tey mel na ni eh, laaj ji taxu ko bari lool ndax eh, soxna si rek muy Xadi Ñaŋ moo am yennati laaj yoo xam ne dugal na ko fi mu jëm ci wàllu tudd yenn turi yàlla yi none moom comme baatab allahu bii ak jabbaaru ak waduudu maanaam daal ne da koy tudd da koy sikar comme di wax yàllaahu ab lim ak yaa jabbaaru ak yaa waduudu ginnaaw bu jullee julli faratay ba pare daal gum julli rek maanaam am lim bum ca waaw soxna si ñoo ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal yàlla dolli ko defal tawfiq waaw dañ naa min xawaasi lafzil jalaalati ziyaadatul yaqiini bi siixati yallah man daawama alayhi kulla yawmin alfa maratin razaqahu llahu quwatal yaqiini wa ziyaadata tawakkulin ala llahi yi dafa am solo lool tur wi mu wax muy yàllaahu comme allahu gi nga koy zikkar yàllaahu ne ne na ci ay njariñam loo xam ne li turu yàllaahu muy allahu woowu mu la ko jagoo nga ne xam ne kii man nga ko e, suba goo xëy maanaam bés bu ne nga wax ko junni yoon maanaam di ko zikkare yàllaahu yàllaahu yàllaahu ba muy junni yoon ne yàlla dina la wër wërsëgale euh, mu sax ci yow nekk ci yow nga am nga am doyloo yàlla gu wér a wér ak de euh, gëm yàlla ak gën a ci yàlla nga xam ne sa mbiri àdduna yépp daal dangay gis na yow moom lépp delloo nga ko yàlla ba daanaka lenn loo xam ne lii mënati laa jaaxal daal euh, daanaka dootul am ci àdduna ndax euh, tur woowu nga xam ne moom ngay zikkar ci la la yàlla di defale kàtt nag lépp loo xam ne lii li doon jaax rek doomu aadama ci kaw suuf la rek yow yàlla dina defal baat nag maanaam loola yow ak yow nga am dalat man ca teey dellu ci yàlla nga xam ne dafa bokk ci lenn ci njariñ yi nga xam ne yii ku sax rek di ko sikkan mu yàllaahu yàlla dina la defal euh, daraja ju toll noonu nga xam ne da ngay doyloo yàlla rek wóolu ko ba lenn dootul la jaaxal tur wi ci soxna si ne da koy zikkar moom itam muy aljabbaaru aljabbaaru ne ne moom itam man daawama ala dikrihi bi siixati yaa jabbaaru sabaxan wa masaan xafizahu llahu min zulmil jabaabirati wal muctadina safaran wa xadaran ne baat bi ñu wax aljabbaaru tam bokk ci turi yu màgg yu sell yooyu ne ne képp koo xam ne kii da nga saxal di ko zikkar di ko wax maanaam di ko waxe yaa jabbaaru di ko ko wax suba ak ngoon ne ne yàlla dina ko wattu dina ko sàmm ci tooñ gi nga xam ne gii ñi yàlla jox mbay tànk ci kaw suuf te doon ay tooñkat ne ne ñooñee yàlla dina la musal ci seen tooñ googee waaye tam ñi nga xam ne ñii ay tooñkat lañu nekk ay noon te man la di la fexe ci fànn gum mën a doon rek nga ne boo dee saxal tur di wax yaa jabbaaru yàlla dina la musal ci noon yooyu ak seen pexe yooyu nga xam ne dañ koy pexe dina la ko fexeel saa soo nekkee ci tukki ak boo tukkiwul yépp ne yàlla dina la sàmm musal la ci tooñkat yooyu nga xam ne ñooy buuri àdduna yi waaye tamit noon yi nga xam ne saa ne ñu lay fexeel bëgg la sàkkalam pexe yi ci fànn gu mën a doon rek ne ne boo nekk boo nekkee ci tukki ak boo tukkiwul yëpp moo ci yem boo saxalee tur wi daal dene maanaam ñoom duñ la mënal dara ndax yàlla moo lay sàmm yàlla kum sàmm moom euh, mbindeef maanaam du man ci yow dara beneen tur bi ci toppaat te soxna si ne it da koy zikkar muy alwaduudu moom itam ne ne min fawaidi zikri hadal ismi annahu yakunu sababan fi xubbi nnaasi liddaakiri bihi alwadud duut ne mooy moom itam ci turi yàlla yu sell yi la bokk ne ne bokk na ci njëriñu tur woowu moo naam boo de saxal yaa waduudu di ko wax lu baree baree bari ne dina tax doomu aadama yi ci boppam maanaam dañ lay sopp dañu lay bëgg yow moom nga xam ne mi yaa ngi zikkar tur woowu kon euh, doomu aadama yi bu yàlla dogalee ñu am ak cofe ceew am mbëggeel defe naa bépp gàllankoor ak bépp noonoo ak yépp pexe yoo xam ne i baax yoo xam ne i doomu aadama mi ngi koy fexeel nit rek su boobaa yow da nga cay mucc ndax ñoom dañ lay sopp dañ lay bëgg dañuy yëttewoo say mbir itam kon eh, ñetti turi daal ak yeneen turi yàlla yi ci des yëpp daal bu ci nit mën a sax ci di ko sikar suba boo xëyee loo ci man di am ci ab lim daal ne wu ci nekk rek yàlla denc na ca njariñ lu nëbbu loo xam ne lii maanaam yow mi koy wax ci sa làmmiñ te sellal ko di ko wax rek te yàlla tax ne dina am yu bare bare muy def ci yoo xam ne yii dina am yoo ci waaye dina am sax ci ëpp loo xam ne lii mi la koy aar wala mu di la ko jàppale di la ko dimbali ci loo xam ne lii doo ko yëk kon turi yàlla yaa ngi noonu daal luñ ci mën a jàpp rek di ko sikkar loola dañuy gën a defal tawfiix rek kon rek dañuy wax ne baadu fawaidi asmaillahi alxusna mu ne warada fi lquraani li al min al ayaati dallati ala ahamiyati asmaillahi wa fawaidiha allati taudu ala al mujtamaci bil xayri wa salaax ngi nag bokk na ci njariñ loo xam ne turi yàlla yi am na ko ne ne am na ay yu bare bare yoo xam ne yi ñëw na ci alxuraan di tegtale ne tur yi nga xam ne daal mooy turu yàlla yi dafa am solo lool waaye tamit dafa am njariñ lool loo xam ne lii day njariñ loolu ak am solo googu mu am solo daal dafay dellu ci eh, bépp doomu aadama boo xam ne bii maanaam mi ngi ci kaw suuf di ko jàppale ci lépp loo xam ne li aw yiw mu di ko ko yombalal waaye tamit lépp loo xam ne li lu baax la mu di ko ko yombalal waxat bayyana rasulu sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi tisaatan wa tisina isman eh, wa anna man yuxsi hadihi al asmaa bi xifdiha wa fahmiha yakunu jazaauhu aljannata dane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ne moom am na juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yoo xam ne yii maanaam dañ ko bind ne lii turi la muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nee na képp koo xam ne kii mën ngaa takk loolu muy lim nga xam ne yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent waaye tamit eh, tur yooyu maanaam nga fexe ba mokkal ko ne ne tey dégg tur wu ci nekk maanaam la muy wund maanaam nañu lañ lañ lañ cay wax bu fekkee ne dañ koy wolofal nga xam ne danga naa allah mooy yàlla yaa jabbaaru mooy yow mi nga xam ne yi yaa am kàttan ba not sa mbindeef yépp yaa waduudu yow mi nga xam ne mii da nga am ak cofeel ak ak mbëggeel ba sa cofeel googu ak sa mbëggeel googu yépp euh, ci la mbindeef yi di bëggante ak a soppante nga xam ko maanaam tur yépp nga xam ko noonu ne ne dana nekk lay nekk ak payam daal ne ne mooy bu faatoo rek yàlla dina ko jàpp ne daal maanaam mu dem àjjana ci lu yomba yomba kon maanaam xam ne turi yàlla yi juróom-ñeent fukk juróom-ñeent dafa am solo lool nga takk ko téye ko noonu waaye tamit fexe ba mokkal juróom-ñeent fukki turi yi ak juróom-ñeent di ko si kari tamit dafa am solo lool ndax ne ne loolu ku ko def maanaam la ko yàlla fay dal mooy ubbil na ko yoon woo xam ne bii ma nga jëm àjjana maanaam loolu mooy doon ak fayam mu waxaat itam ne wali takraari asmaillahi l azamu alazimu ala nafsiyati l fardi l mumini wa quwatihi l jasadiyati wal tamit turi yàlla yi nga xam ko di ko baamu maanaam turu nga jël ko di ko baamu ay yoon yu baree bari ne ne am na ab jeextal bu màgg-màgg bu rëy boo xam ne bii nit ki bu ko dee def rek mom jullit bi euh, yàlla da ko ci defal xéewal yoo xam ne yii Eh, da cay amee kattan goo xam ne gi kattan ak yaram lay doon waaye itam da cay amee kattan ak maana mu am baatin boo xam ne bii daal eh, dina ca mën a ko ci yu baree bare ne itam eh, lu mel ni mokkal turi yàlla itam ne ne pay xam ne gii moom la yàlla dikk képp koo xam ne kii Euh, jàpp nga tur yooyu xam ne juróom-ñeent fukk la waaye tamit nga mokkal ko waaye tam di ko settantal di xam maanaaya nan la demee ne am na xewal yu gën a bari yu baree bari yoo xam ne yii euh, su nit ki dee baamu di ko wax lu baree baree bari ne euh, day am ay njariñ yu baree bari yoo xam ne yii maanaam day jaxasoo sa dund ko nga xam ne gi yow nit ki moom ngay dund te nee na bokk na ca njëriñ yooya muy fahmul mumini li xaalixihi eh, eh, wa taalluquhu bihi fa yusbihu akthara xurban minhu nee na bokk na ci njëriñ yooyu ne ne nit ki day kon bu takkee turu yàlla yooyu mokkal ko ne day xam kan mooy boromam waaye tamit day gën a euh, wékku ci boromam gën a wéeru ci boromam su ko defee ne loolu dina tax moom nit kooku mel noonu mu mujj nekk koo xam ne kii maanaam ku jege yàlla lay doon waaye tamit da nekk koo xam ne kii maanaam ku gën a amam xemmemteef ci topp boromam la ci jaamu ko waaye tamit day xeer lool ci lépp loo xam ne lii lu koy may ngërëmal yàlla la rek ne loola mu nekk ci waaye bokk na ca njariñ ya itam muy maarifatu mumin li sifaatillahi e, yajaluhu akasara xashyatan lillahi fa yaxrisu ala al iltisami bi awamirillahi wal ibtiaadi an nawahi nenay tamit bokk na ci boo mokkale turi yàlla yooyu xam ko yow jullit bi ne ne dalay xamal melokaani yàlla yi su ko defee noonu nga xam ne ni la yàlla mel dalay def yow sëg ragal yàlla di gën a bari su ko defee nu sëg yàlla sa ragal yàlla gën a bari rek ngay daal di gën a góorgóorlu ci di xir ci di takkoog lépp loo xam ne lii ndigalal yàlla la waaye tamit di sori lépp loo xam ne lii moom la yàlla tere waaye bokk na ci njëriñ itam ziyadatu itimaadil abdi wa tawakkulihi ala xaaliqihi fa yufawwidu kulla umuurihi lahu wa bi wa yaxmaduhu fi jamil umur xayriha wa shariha ne na bokk na ci tem mokkal tur yàlla yooyu di ko baamu di ko tudd lu baree bari te xam euh, tur lan lay wax maanaam lan lañ ci jublu ne dina tax jaam bi gën a wéeru ci boroomam gën koo doyloo waaye tamit su ko defee day daal di jël mbiram yépp daal ko jë jëmale ko ci yàlla waaye tamit day dem ba day am daraja jotool day sant yàlla ci mboole mbir yi nga xam ne yi maanaam moom lay dund fii ci kaw suuf maanaam day dem ba soo amee lu baax soo amee xéwal euh, day sant yàlla waaye tamit su yàlla wàccee ci moom leneen itam muy loo xam ne li xañ na neexu ko ngir doomu aadama dana bu boobaa it loolu da cay sant yàlla su boobaa daal day àgg ci daraja joo xam ne ji su ko yàlla defalee xéwal defal ko lu ko neex mu sant ko waaye bu defee ci moom leneen itam euh, mu sant ko te loolu def bokk ci daraja yi nga xam ne yi moo gën a kowee ab jullit war koo melowoo waaw kon nag ñoo ngi lu bu baax a baax di dellu di sant yàlla subhanahu wa taala di ñaan yàlla loolu ñoo defal tawfiix gën ñoo jàppale ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bii moom lañu yàlla boole ba ñu mën ci gën a taxaw euh, gën cee mën a jàpp ba li nga xam lii moom lañ ci yaakaar ci ay tawfiq ak ndimbal lépp yàlla defal ñu ko ci bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziyaare mbokk yépp nag assalaamu alaykum wa rahmatullahi